masawa la déggloo waxtaan gi ndax solo yi mu ëmb yàlla nañ ko yàlla déggloo lépp fa tabaarakallaahu e, jëf jëfi sang waxtaan ci jamono ji pour ni mu war a defaroo ba noppi ubbee ci sëy bii ñu jox ñu ndigal te ndigal li bàyyeekoo ci suñu sang bu tedd bi Chérif Ibrahima muy ñu bëgg am lu ñu nab nabeek mbooloo mi jëm ci sëy ah fa tabaarakallaahu ndigal nekk dafa am solo maaruuf ak ihsaan ja ñu xool lan la taxawee maaruuf mooy njekk ihsaan mooy rafatal yàlla nee na jigéen gi ñu yëkkati teg ko ci loxol góor may ko ko yàlla nee na ñaar laa ci bëgg fay nga téye ko ci njekk sëñ suur luy njekk njekk mooy ki nga xamante yaa ko bàyyi ci sa kër booy wax ak moom na waxin ba rafet booy tàggoo di dem liggéey ji na tàggin bi rafet booy waxtaan ak moom na kàddu ya rafet boo koy jox dépasse na joxin ba rafet mooy maaruuf yàlla boobu la bëgg njekk yàlla nee na nekk boo demee nekk ba am na noo mel moom ba bëggatoo mu toog ci sa kër yàlla nee na nekk ixsaan ja door a ñëw mooy nga rafetal bàyyin wi maataamu benn musuwaar fa bàyyin ba la yàlla di bëgg ñu rafetal ko tey rek maa ngi koy wax ci jumaa ja ma naan eh, bari na góor goo xamante ni léegi dañ lay may soxna nga war koo téye na mu gën a jekke nga sàggan ba mu rëcc sa loxo keneen ku mu dem ci loxoom nekk ngay xarab ko di xarab soxna sa te yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam la yàlla may ci jëmmam ku mu nekkal ba noppi du mën a nekk ak keneen wala tankihu azwajahu min baadihi abadan la yàlla wax moom rasulillahi moo ko am kon maaruuf ja ku la yàlla bëgg moo tax ma ne léegi sang bi dafa waxtaan ci jamono yokk ñu xam-xam ba noppi ubbi tem bi nit nag boo koy yóbbu danga koy ñimaloo yoon bi loolu la def mu ñimaloo ñu fi ñu jëm mu mel ni e lii mu wax léegi yàgg na di ko wax muy kàddu gi mu utilise ni kurus mënta maye njaboot sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum laa dégg mu nettali ko mu ne dafa am benn góor jaamu yàlla rekk a ko ñor sëriñ seex nee na mu dem ba na muy jaamoo yàlla mu àgg ci étape boo xamante ni am na jaam bu mu yore ci biir këram jaam ba ma jama la tudd sëriñ seex nee na góor ga ne daal soxna kenn du ko ko may moom daal noona lay jaamoo yàlla nekk ci yàlla rekk ba dem agsi mu dem rek waaye du am soxna bu ko kenn may soxna bu ñu waxee soxna rek góor gi gàntal sëriñ seex ne fu ñu tuddee soxna rek góor gi ne ay waay bàyyi leen ma ni ma nekkee sëriñ seex nee na am benn bis doomu bàjjanam miin ko lool mu dem wutali ji ko jigéen ju baax jigéen ju baax te mën ko te yépp nee na mu jekki-jekki rek ne takkal nañ la soxna mu ne ku def loolu mu ne ñun ñun ñan mu ne sa waajur ci la bokk yow nag bu ñu fontoo nekk fi rek doo wut soxna da jaamu yàlla ba kañ góor gi ne waaw bu ngeen ko indee man am naa ay pexe ndaw si ba muy dem yóbbi ji soxna sa ca céet la dafa ne na ma ñaar topp sëriñ seexay nettali de ñaar topp ko nee na mu ànd ak ñaar ñooñu àgg ca kër ga dugal soxna si ne yéen ñaar yeeweeku leen ñibbi ngeen bàyyi mag moom nee na ñu yeeweeku ñibbi ndaw si dasak góor gi ak soxna si ci biir kër gi ndaw si toog ba ci yàgg mu ne ko ubbal sa buntu kër maa ngi ñibbi kii nag sa soxna la lew na la nekk fi rek di wéyale ba faw nekk mënta ne te doo am soxna nee na waa ji ne taluma ko yeesal njàpp bu jekk sëriñ Cheikh nee na mu xëcc sijaada lal fas yéene kàbbar ba bët set nee na ndaw sa dugg ca biir néeg solu ba mel na mu war a mel xam ngeen rekk tabarkal la tabarkal la nee na mu génn fekk ko muy kàbbar rekk mu jaar ci kanamam mu ne ko <laughs> nee na mu doxantu tuuti ba sori delluwaat taxaw ci ginnaawam sëriñ seex nee na yàlla xiir waaja mu tari faatixa ba jeex ca nawaafil ya mu daldi na ces wal asri ndeke ndaw sa kànfóori la ci alquran mu ne soxna sa taxaw ci ginnaawam rek waa ji ne wal asri soxna si ne ko gëñ naa ci tàkkusaan li nga ma indee sa kër defoo ko mu ne innal insaana la fil xusri mu ne ko yow rek a perte kenn pertewul ko dul yow indi sa jongoma di naafile rek illa alladina amanu mu ne ñépp a seen soxna ba des yow wutal pexe wa amilu saalixaati mu ne ko yow rek a fi des ñépp a ngay defar ba mu baax watawaasaw bil xaqi mu ne dëggaama bàyyi sa kër bu dul woon ak dëgg ñibbi naa ndax jàq ja watawaasaw bi sabri mu ne muñ naa ba dee waaju sëlmal ne xool ndaw si ba ci yàgg riñ seex nee na mu mel ni ku xaw a dëgërlu kàbbaaraat julli nee na ñu awaasa tuuti ndaw si jaaraat taxawaat mu ne kom waa ji ku tuuti la sëriñ seex nee na ndaw si def ko jël lekk këf ko yëkkati ko ndax ku am yaram la nee na mu sànni ko ca kaw lal ba di ko pomti pomti mu ne laal fu ne ci moom ba góor gi yëg boppam ndaw si ne ko yalax banding ne taxawee ne ne ko dafa am lu ma fàtte mu ne ko lan la mu ne suñu xeet buñ la mayee jëkkër balaa ngaa jëflanteeg moom am na sàrt yooyu teg buñ la ko defaree nga door a jëflanteeg moom góor gi ne ko lan la lu xew lu xew lan moo tax nga dem ne ndaw si ne ko déet dafa am lu des mu ne ko lan la sëriñ Cheikh nee na ndaw si ne ko comme dafa lànkoon bañ a am soxna ndaw si xaw koo toroxal ne ko suñu famille kuñ ci takk balaa ngaa jot ak sa jëkkër da sëgg mu dew la mu def la fas ngay wër ci néeg bi naan mbuu <laughs> nee na waa ji ne ko loolu kenn duma ko def man duma aw fas bañ may war loolu moom duma ko nangu mukk ndaw si ne ko boo bëggul rek ñu bàyyi muy xëcc bunt bi di tëj rek waa ji ne ko bu fekkee noonu la demee war ma waaye bul wut leneen nag nee na mu sëgg comme baykat la ndaw si war muy wër néeg bi naan mbu ba ci yàgg ndaw si seen aw teg muy tegu fasam ndaw si ne ko nijaay faaw ma teg la sinon rek damay daanu mu jóg taxaw ne ko kenn du ma teg wax nga sëgg bi ma nangu la ko nga bëgg indi leneen man moom kenn du ma teg du ma fas mu ne ko boo nangul rek ma baax mu ne ko tegal waaye bul xalaat leneen <laughs> sëriñ Seex nee na mu teg ko di wër ba ci yàgg mu seen laabu fas bi mu ne ko nijaay faaw ma laab la sinon damay daanu <laughs> mu ne ko man kenn duma laab laab bu ñuy dugal gémmiñu fas di ko dugalaat sama gémmiñ duma ko nangu mu ne ko boo mënul nga baax yamu nanguwul woon yépp sëriñ Seex nee na mujjee na ko nangu laata loola di xew sëriñ Cheikh nee na nekk fekk surgam bi mu bi nekk ci këram nangu na fas ba mu ko mayoon ak mbaam ba ak xaalis ba mu ko joxoon ndaw si ne surga bi nag bu ñu demee ba sori neel bunt bi kël bu la gisee rek nga ne ko fas yeeg mbaam yi laa soxla dina la ko mayaat yépp ba mu ca tollaa rek waaja ne bunt ba kël mu ne ko loo fi wut óor bi mu ne ko fas yeeg mbaam yi nga nangu woon mun a jëlal lépp ëllëg bu ma la déggee jëlal lépp nee na mu xëy ca ëllëg sa nag ànd ak waa ji di doxantu nee na ñu mu jub ñuy ree rek mu ne ñii lu ñu ñuy ree mu ne ñii lu xew mu ne ko ah waxuma dara de mu ne ba ma dégg ko ci mbedd mi rek gis nga e, ma dugg ci ndigal li ma sang sang bi jox dëgg muy baatu attalaax ci lay gën a yàgg yomb na góor yi lool te waroon leen jafe ndax muñ bi sang bi wax sànq yomb na góor ñi lool xam nga góor yàlla dafa teg ci tënkal loxoom baat boo xamante ni bu tisbaar jotee ñépp di dem jàkk ja boroom kër gi tëdd ci kaw piliyaanam di dallu soxna si nekk ci ginnaaw kër gi di defar dugub jigéen ji nekk ca waañ ba di togg añ xale yi di foo ci diggu kër gi boo sàndee baat bi rek kenn du añati muy baatu fase naa la bomb la bu yàlla teg ci loxol góor te ne ko ne garde ko bu ko gaaw a wax mm-hmm. am ñetti baat yoo xamante ni ci fiq ñoo tudd mu muallaqa pase yi ñu aj am juróom benn baat yoo xamante ni ku ko wax jigéen dafay wécc ñetti pase dafay wécc ñetti pase masalan boo ñëwoon tey ñu may la soxna mu dikk ci kër gi dugg nga ne soxna si anti taaliqun in zanati mu ne yow boo dof dofloo ba am bis nga mooy ma mooy fase naa la bis bu la moyee rek fase ba tàgg na mooy talaaqul mu àllaqa fase bi dañ ko aj rek di xaar jëf jëf bu xewee rek mu sotti ñett la beneen bi mooy boo waxee soxna si in xarajti bila iznin minni boo génnee ci kër gi te doonul sama ndigal mooy fase naa la saa yu génnee te doonul sa ndigal lekk fase ba tàbbi na moo tax góor war naa moom laa mañam ñu bañ a woyofal sëy maa aqalla llahu shay'an abghada alayhi at-talaq yàlla nee na amul lu ma daganal lu dul yi ma daganal yépp ba ma ca gën a bañ mooy fase surtout nag min xayri baasin boobu mooy wax ji bu fekkee ni loraange nekk ci biir yàlla may na la ko bu fekkee ni nag benn loraange nekkul ci biir topp sa bakken rekk a tax nga fase wala nga bàyyi yàlla nee na boobu bëgguma ko sayidina muhammad wax ci xadiisam ci téere bi ñuy wax badru zawjayni fii mazhabi imam malik yonent bi ne ayu mamraatin saalat talaaxaha min gayri basin lam tarux raaiqatal janna yonent bi ne jigéen ju mu mën doon bu jàkkaarlee ak jëkkëram ñaan ko baat te loraange nekkul ca biir sëy wa sayyiduna Muhammad nee na du mus xetu àjjana ëllëg yowmal qiyaam jigéen jooju di ñaan baat yonent bi nee na ëllëg du mus xetu àjjana waxul àjjana de lam xatal jan na xet walla wax min xayri ba'sin ja nekk ngay déggee ci biir wax ja bu loraange amul boo xamante ni war naa tax tekk li koo am bu loraange amee nag yàlla topp ca boromam beneen bi ci des ci ñetteel yi mu muallaqa mooy in daxalti daara fulaani nga takk soxna mu ñëw nga ne ko kër gii ma jàkkaarloo jubawuñu bis boo fi génnee dugg ci kër googu mooy fase naa la bis bu ca duggee rek tàbbi na boo ca génnee nekk nga dem ci juróom benn yoo xamante ne ku ko wax jigéen moo tax benn waay laaj na ma benn question bu doy waar keroog moo di ni borom kër gi tëdd ci lalu hôpital dem bay waaj a génn àdduna mu fase soxna ndax dagan na wala daganul sariya nanguwu ko sariya bëggul ku nekk ci feebar ñu koy takkal soxna bëggul ku dem bay génn àdduna fase soxna xam nga loolu ci fiq moo tudd ixraajul waaris amaana ki ngay fase yéenewoo ay doomam ci alal ji nga fi nar a bàyyi yéene ci soxna si moo tax nga koy fase islaam ne nag dama koy dugal yow comme dangay ngay ñibbi bul yàq ginnaaw gi islaam ne yow comme sa óoru dem jot na bul yàq sa ginnaaw boo fasee rek islaam bañ parce que nee na moo tudd ixraajul waaris génnee aji donn moo tax islaam du ci d'accord Sénégal am na baat bu ñu xewle ku re ku egg ci risaala fekk ni daganul moo di ne jigéen nga am ñeenti soxna takk leen ci sa kër kenn ki mer ñaan la baat nga ne ko bata dem bata koste déedéet idda day jeex bata door a koste bu idda ba jeexul beneen bato mënut a ñëw mais topp sa alal lekk ku dem rek nga xëcc keneen te idda jeexagul am ñaar yoo xamante ni ku ci takkee jigéen kooku du la daganatali day xaram ci yow ba yow mal xiyaam maa ngi ciy ñëw léegi juróom benn yi ñu wax ni képp koo xamante ni wax nga ko jigéen ñetti pasa lay wecc masalan anti taaliqun batta boo ne jigéen fase naa la fase bu dog yaa ko waxal sa bopp dara desu fa fase naa la fase bu dox ba de zaw ji mooy tax nga mën koo jotaat te gis nga ba de ji lu sew a ngi ci sëñ Camara xam nga lan moo ci sew ba de ji yàlla góor la ci yar yaru ci jigéen de parce que kàddu gi indi ba ji génnewul ci jigéen góor lañ ko dénk moo ko génde yàlla waxoon ko ca commencement ba ar rijaalu qawaamuuna ala nisaa moo tax ndigal la nekk ci yow génne gi nga tey teylu ba génnee ko ci sa làmmiñ la yàlla di yaree góor yëguloo ni li ñuy wax ba euh, baara yëgoo bu ko jigéen defee lislaam du ko ci topp mais góor bu ko defee lislaam topp ko parce que góor gi la ñuy yar amul dura baara yëgoo jigéen ji nag bu ko defee amaana bëgg delluwaat ci ay njabootam ci loxoom moo tax mu def ko moo tax lislaam du ko topp parce moom la yar amu ci droit te dafa wóorut sax wóorut sax wóorut ah ak wóora kii dugg mën naa lab ne fa rek ne bu ma kenn làbbali lab bi ñor na ko moo tax wóorut yàlla def ci yar góor wax nga kàddu ku ëpp yàlla ne kii yenn a bokkoon benn kër daan bokk benn néeg mu daan tëdd ci sa wet keneen dina ko xam nga door koo jëlaat ndax yar wallaahi ndax yar comme dangaa tey teylu ba wax kàddu gu ëpp yàlla ne ma tey teylu rek ba tëjlu la ndax kàddu gi nga wax moo tax jamonoy sëriñ xaalima jaxate kala almutawakkal alallaahi benn jigéen benn euh, jëkkëram daf ko fase xam nga jigéen boo ko fasee fu ñu ko mën a yónni sa buntu kër lay jaar te defaru buy defaru jiine rek dana ko def moom te boo leen fasee ci la ñuy gën a rafetaat sa bët yàllaay def loolu kooku mbiru yàlla la fu ñu ko mën a yónni rek faaw mu jaar ci sa buntu kër moom dana ko def soxna si ne tëll rek waa ji ne i ay waay sama soxna sa ka mu toogal ndake nopp na ko taxaritam la mu ne ko woon mu ne ko lu ko woon nil <laughs> mu ne ko kii sama xel a ngi ci moom ba léegi mu ne ko nañ dem ci xaalima jaxataka la al mutawakkal alallaahi mu àtte ñu ñu dem xaadi laaju leen dara dafa génn rek ne toog leen foofu ngeen xaar ma ma recevoir gan yi bu ma génnee rek àtte leen di resevoir ba mu mët ñetti waxtu xaalima jaxate kala ne tëll jàkkaaroog moom ne ko ana ki fase woon soxna waa ji ne maa ngi nii mun a dagg na <laughs> boo fasewul woon contrôle sa bopp <laughs> xakim bu doy la daan àttee mu ne boo fasewul woon rek contrôle sa bopp mais yaa fase am ku mës a leb alalu jàmbur alal ju bëri lànk bañ koo fay waa ji ne ko nañ dem ci xaadi mu àtt ñu ku mën a àtt la ñu àgg xaadi ne waa ji fan la la lebalee xaalis ja waa ji ne jàppatuma fan la de mu ne ki ko leble yow foo ko leblee woon waa ji ne ko ca garabu Dakar ga jàpp naa ko mu ne ki leble woon xaalis ba demal fàqal maw yar ca garabu dakaar ga waaja dem xaw a yàgg lool mu toog ba ci yàgg ne ki ñu lebaloon xaalis ba waa kii yàgg na de waa ji ne ko garabu Dakar gaa sori moo tax xaadim xaadim yow mi xam garabu Dakar gu sori ak bu jege fayal alalu jaambur yow xam nga fi la ko lebal ku yéema àtte yu bari noonu la ko daan àttee ci xikma ci xikma la ko daan àttee du ko fayal alalu jàmbur yow mi ràññee fu sori ak fu soriw xam nga fan la dangay danga doon bañ bañ lu waaw moo tax boo ni jigéen fase naa la fase bu dog ñetti fase lay tekki ba da zaw ji mooy tax nga jëlaat ko ak boo ko ne fase ñetti yoon même boo ko ne fase naa la fois ñett rek lay doon ba da ji parce que mera la yóbbu ca moom lay doon aw xablaki ala xaarabiki boo ne jigéen sa buum moo nga ca sa doq sa buum delloo naa ko ci sa doq ñetti pasa lay firi ca risaala moo tax kàddu yi nañ ko seetlu de léeg-léeg nit wax ci kàddu gu ëpp ñetti pase la nga dem ci ku xamut ni mu demee mu def ko benn pase rek takkal la ngay njaaloo rekk na ca rek nag moo tax sariya dafa am nuñ ko tëralee saraa lakum min addiini maa wasaa bihi nuuhan wallazi awxaynaa ilayka la ñu tënku nekk ilayka jooju mooy sayyiduna muhammad mooy li sang bi wax léegi yàlla day bañ jaar ci turam rek di ko teggi rek di ko tefasu rek waaw sariya loolu la tënk wala nga xool jigéen ba ci yàgg nga ne ko anti xaraamun yow bis ni ki tey xaram nga ma ñetti pasa lay tekk mhm. aw xaliyatun walla summeeku naa ci yow yaa ko waxal sa bopp summeeku naa ci yow ñetti pasa lay tekk wala nga xool jigéen ne ko aw bariyatun maa denc yow ñetti pasa lay tekki juróom benni baat yooyu ku ko wax jigéen ñetti pasa lay tekki saw ji mooy tax nga jotaat ko mooy yar ja ñaar yi nga xamante ni nekk ku ko jëflanteeg jigéen kooku du doonati sa soxna ba yowmal qiyaam première ba mooy li aan li aan mooy rëbbante maanaam rëbbante publiquement ba ñépp di gis yaa def nangam defuma nangam say xaritu doom fekke dëkkandoo yi fekke ah. ngeen di xasante di waxante lu bon kàddu yu ñaw jub kenn joxul moroomam cër ku ne xam ne ni nit ki mel ñu dem ca jàkk ja nekk ñu ne nañu àtte bu xaadi amee ñu taxaw ku jigéen ki bu fekkee ni moo njëkk a jóg taxaw ne man da ngeen baal ma li ma jortu woon ci sama jëkkër amul man maa juum am na quatre-vingts coups parce que dafa xas gor bu ko ku góor ki defee itam am na quatre-vingts coups ndax dafa xas gor walladina yarmuuna almuxsanaati summa lam yaatu bi arbaati shahaada fajliduuhum samaaniina jalda sanga bi firi woon na ko fii ca ba muy def tafsir suuratu nuur moo sariya yombul de Eh, bi ko ñaareel mooy in aqada in aqada alayha fi iddatiha lu garaaw la fekk jigéen ci idda takk ko ci biir idda bi boo ca boo ca amee nattu nag ba sëy ak moom ci la lay xaraamee ba faw wa wati aha wa wati aha la sariya ay utilise mooy nga jonjonteeg moom mu ne kooku xaraam na la ba faw attalaaku xabla duhul xab la duhul ci sariya dafay am ki toog fii ci Sénégal am jigéen ju mu xamantal bitim réew na ngeen ci bàyyi xel gis ngeen portable ni mu tuutee portaabul gis ngeen ni mu toll ah puudaru maqiyaas a ngi ci biir gis ngeen ni mu toll lii ah seetu bu jigéen ji di seetoo moo ngi ci biir crayon ji ñuy def moo ngi ci biir monte xef yi moo ngi ci biir fii lépp a ngi fii moo tax nopp ci portable wóoratul xale yi dañuy fotowu defar koo defar ba ñu liisa liis ba koo ci xool mu ne naaj nga foog ni moo dàq jinne te waat naa ko ci yàlla boo ko seetee fajar ba mu jóge nelaw ji yuuti jaar nii kawar yi daanu xef ya dindeeku di nga yëg ni ki ma daje woon ci eh, whatsapp bi du kii bàyyi leen ci xel de jigéen boo ko nobee bu ko seet ay 6 ci ngoon da ngay fekk mu sañ sa ba baax defaru ba mel na mu war a mel tegale ay tànkam di la xaar léeg-léeg tey teylul jaar fa ay suba wala ay onze heures fekk ko mu takk mu sóor wa kawar ga am yu sàndee ko du maquillage du def dara xef ya du ko monte man xef ki ko génnee sax jaaxal dama ak rafet xaw ma xaw ma ku ko génnee surtout borom bët yu rëy bu ko defee waaw yéen a gën a xam lii may wax <laughs> defaroo ba mel noonu danga nga naan déedéet du kii moo tax góor gu xoromu da daan wax na jigéen bu amee ñeent bu la ci kenn jiitu doom na njool te koket taxut kawar ga na daanu kenn sofu ko na xees a xeesal taxut bët yi na rëy te bokkiwu ko gaa yaa ngi fi tasu de <laughs> ah léegi nag juróom benn yooyu liñ ci soxla ci ñaar yooyu ku ko jëflante ak jigéen rek kooku lewatu la léegi nag ki nga takk fii moo ngi bitim réew yàlla dogal nga takk ko ngeen am lu ngeen waxtaane ci wat sab bi ba coow ñëw seen diggante xam nga gisagoo ko gisagu la àndagoo leen yéen ñaar passé tab bi ci diggante ba keneen nobaat ko nu ñuy def kooku du ñu xaar ci idda ci moom parce que gisul jëkkëram gisu ko kenn du xaar idda ci moom yaa ayuha alladina amanu ida nakaxtumu almuminaati summa talaxtumuhunna min xable an tamasuhunna fama lakum alayhinna min iddatin taataduunaha yàlla nee na waaye daal ci ci ak ci sa mbaax fa matti uhunna wa sarrixuhunna saraaxan jamila kooku bu gisee keneen rek mën naa dem mën naa dem boroom maqaamatul xariir nag dafa am juróom-ñaar yu mu wax yu am solo mooy li sanga bi di wax affaire yi faaw ñu di ko wax te naa ko wax nag ndax ndigal la <laughs> naa ko wax de boroom maqaamatul xariir nee na ki takk soxnam bu mu am kersa ci moom génnee caabi ji bu amul juróom-ñaar na tijjiwaat bunt bi génn ñor na leen de gars yi nee nañ juróom-ñaar jarto jooy naa ko wax <laughs> waa ji nee na juróom-ñaar waaw juróom-ñaar <laughs> nee na nag surtout nag ci seddaay seddaay la ko wax jaa asitaau wa indi min xawaijina sabu idan qataru an xaajatina xabasa mu lim ko kennun wa kiisun waqa nuulun waqa sutila baadal kabaabi wa kussu naaimun wa kisaa muy juróom-ñaar mu ne boo ko amul rek tëjjiwaatal bunt bi am na lu manqué ca néeg ba mu ne te ca sëy ba la bokk nekk ñu ne ko lan mu ne kinnun na nga fexe ba bu seddee ba sedd nga am jongoma ju taaru na am néeg bu aful néeg bu aful néeg boo xamante ni ngelaw du dugg fenn bu nukk célibataire yi ngeen wut kaske dugal ko seen nopp yi ma yeggali <laughs> wala rek ngeen préparé ko rek <laughs> waaw néeg bu nukk bu aful mu ne nanga ko wut kenn noonu bien chaud waaw ma ngoog man nekk France la déggul <laughs> kenn noonu ñu ne ko ak ban mu ne wakkiisun sëñ Mansour xam nga luy kiis mu ne na nga am alal ju doy joo xamante ni boo xëyee di nga ci mën a joxe dépasse yonent bi ne nag alal yi nag waxuñu gàññ doylu la wax mooy alalu jullit yonent bi ne na doylu mooy alalu jullit li nga jot a am nga yëg ni dépasse suba moo ngi ci sa poos nee na dana neexal néeg ku yorul dépasse xelam ca dépasse ba lay ne wakka nuunul mu ne da nga yore ànd boo xamante ni mer wi ànd bu bay xam nga néeg bu nugg ba noppi ànd bu nugg duggaale hmm? te benn woykatu arab nee na jongama bu tollee ci ëram yaramam dafay nugg ni ànd ñetti nugg xew na te demaguma fenn hmm? suti la nee na nga yore kaasu kafe bu tàng jër kaasu kafe bu tàng jër bu baax nekk mu ne nga koy naan ndànk nekk xaw a jege ànd bi nekk mu ne soxna si bu mu la sori mu ne ñett yooyu yépp nga dajale ko kaasu kafe bu tàng kaasu ñolle sax la wax waaye comme jullit nga <laughs> te sàngara lew la ñu soppi ko kaasu kafe Seydina àllin nekk porox ndalu foofu Alioune nee na am na loo xamante ne gën na ci kafe waaye baaxul ci jigéen ñu ne Alioune lan moo gën ci kafe baaxul ci jigéen mu ne kafe moom forte tàng rek ko ko jig mu ne jigéen forte tàng jigu ko sang bi wax ko léegi ci biiri kàddoom góor gaaw a joxe ci jamonoy Seydina Alioune ibnu Abi dafa am borom kër gu xuloog soxndam xuloo ko ñu lijjanti lijjanti dara mënul lijjanti ko xuloo ga lool ñuy dem ba ci yàgg soxna si ne na nangu naa nekk ñu dem ca pénc ma ñu àtte ñu maag sama jëkkër àlli ne ko lu la xiir ci loolu mun a bëgg a jàngale góor ñépp li xew àlline ko bismillah ñépp jëw toog soxna si ne sama jëkkër ji li ñu boole du dara moo di ne dama donn ñaar ci sama woy jur bu jigéen moom mu waroon a donn ñaar ci way juróom bu góoram donnu ko looloo indi suñu coow ali kii nar naa wax xam-xam de mm-hmm. mun a soxna si banak ban mu ne damaa donn ci sama way jur bu jigéen mën a laaj ak mën a tooñ mën a laaj ak mën a tooñ moom mu waroon a donn ci wayu juróom bu góor mën a joxe ak mën a muñ donnu ko looloo indi suñu coow moo tax asaqiyun xaribun min annaasi yonent bee ko wax wa xaribun min allaahi wa baidun anin naari yonent bi nee na ki tabe jege na nit ñi jege yàlla sori safara léegi ne contraire bi nekk nga xool ki ney dafay sori nit ñi sori yàlla ñuuxu ca safara moom la sëñ Hadi Touré way ca wayam wa moo tax sang bi sànq rek maa ngi koy wax sëriñ man Mansour Thiam ma ne ko sërif li mu ñu jàngal bari na ku ko utiliser rek mën a nekk ak sa soxna dama xamul ne ku ko déglu ba pare te jëfeewoo ko mais li mu ñu jàngal pour nit mën a yor mu bëri na man suur ne ma wax nga dëgg de booba maa ko woo suur ne ma man maa ngi nii di raxasal soxu ay ndax ma ne ko yaa nekk ci yoon de mu jóg di raxas ndab yi Mansour Guèye a ngi nii nee na moo bale tey gis nga yooyu buñ ko xeeb buñ ko xeeb sang bi jàngale na ko ba tàyyi mais ku diis rek doo ko mën am na yoo xamante ni ku diis du ko mën te ku diis da ngay di waaye doo dem sëriñ Fadilu Mbàkke moo ko daan wax benn ndongo ñu ne ko Baay Fàllu kii dafa diis lool ndongo yi lu ñu leen sant rek ñoom dinañ gaaw a def waaye moom dafay diig diigal rek sëñ Fall ne ko ndongole waaye mu ñëw mu a ko tànkal si wa ndox te indi mu tànk si wa ndox indi mu ne foral ma banta bu woyof ak xeer bu diis mu for bant bu woyof ñëw ak xeer bu diis bay Fall ne ko tàbbala ci biir ndox mi waaye mu teg rek xeer ba diig mu ne ku diis diig rek mu ne ko tegal bant bi mu teg mu tàbbi ci kaw mu ne ko woyof toll rek nii rek mu jeex tàkk borom ikma la woon mu jeex tàkk ku diis du mën a sëy tiis du mën a yor a soxna sëriñ seex nee na nag xëy war a joxe dépasse teg siis ci buntu kër gi fas yéene ñàngal seex tijaan nee na jaru ko du la teye joxe dépasse comme loo ñàngal ñàngal ñu laaj la dépasse wàccal sa kanam sëriñ seex billaahi wallaahi tallaahi jàngal nañu de piir jàngal nañu piir moom sang bii toog sërif Ibrahima dara at yi xanaa kay lu ñàkk jëfe waaye la muy wax ku ci bàyyi xelek am loo mën a jëflanteeg sa soxna ba mu bëgg ci yow waaw yooyu muy wax ni boo joxee li la war ba noppi am loo ca tegaat danga koy may ngir nobeel maye ngir nopp rek waaw génnee lii pour lan la wax na ko ba tàyyi nga ne ko nopp la rek joxe naa farata ba pare waaye lii nopp la rek da leen ko essayé baax na de man nag du ma wax li may def waaye <laughs> baax na de am na solo de baax na de yu sew sew yooyu ñuy xeeb heure bu ne mooy indi coow te baraana ku bàyyi soxndom li tax ñu xuloo ba nga bàyyi ko buñ la ko laajee doo ko mën a expliquer mm-hmm. te gor nekk war na boo jëfee jëf ba pare buñ la laajee nga am foo ko teg sànq maa ngi koy wax ca jàkk ja ma ne jigéen ñi nañu bàyyi xel sa jëkkër dem liggéeyi ji te doon nit ku ney ndax bu dee nit ku tabe du am problème mais nit ku ney bu wàccee seen këyit ci kaw taabul këyit ngay weex rek te xamut la ca ne tiitaangee koy dab moom du talaañ këyit gi rek lay xool te du la ñemeñ a laaj lu ci ne moo tax facture bu ñëwee dencal boo amee góor gu ney ndax jigéen ju am góor gu ney xam nga ko facture bu ñëw dencal muy bu courant bi muy bu ndox bi bu añee ba noppi nag nga génnee ko waxtaan ak moom ndànk ndax seen këyit ku weex ñi ma woo koo laajte te yaa ngi koy cetal rek mitti na torop te añagoo bu dee nit ku tabe nag amul problème lu mu séen rek dënk na ko yàlla yëg ni rek li ne rek lay jëfandikoo te tabe mooy jikki gor mi mooy jikkay gar mi tabe wat naa ko ci yàlla yu bari nekkul woon ci man kee ko def ci man billaahi wa sarafil quraan ba ci bëgg alquraan wax naa ko ba tàyyi ba ci bëgg alquraanul karim ndax mbir mën nga cee jaar ba noppi waaye am noo jëflanteeg moom waaye boo gisee ku lay teg ci yoon am yu mu la bëggaloo ci biir rek mooy tax nga am ca la nga bëggoon moo tax may wax ni nabbihu al atbaa kay laa yuaaxidu bi ma ahdasa fi diini duna sawaayi kii du ci bokk Seydi Hadj Malick moo bind ca téeram ba ne na ngeen yee ñi leen di topp nabbihu yee leen al ba ñi leen di topp kay laa yu axisu bi ma ahdasa fi diini duuna sawaayi ngeen bañ leen a jàppee li xew ci diina ji rek yoro ay nit ñu lay topp kàddu goo wax du leen njariñ te loo wax ñu tàccu la te la nga wax dara amu ca am foo leen noté dégg naa benn sang mu wax kàddu gu am solo dafa ne nit koo xamante ni wutum mbooloo moo la tax a jóg mu ne boo ca defee ay pexe ba mu ñëw pexe ya nga def ba mbooloo ma ñëw di nga def pexe yu ko ëpp pour ñu daju fa loolu nag dafa metti waaye ku toog yàlla dénk la ko nga tëyal leen yàlla moom ci loolu la ne moo tax sëy yi mu ñuy waxtaane nañ ci di bàyyi xel bu baax a baax te teg ci suñu tànk buñ ko defee rek ñun ñépp ñu mën a nekk ak sunu soxna ku ñuy door a may soxna nekk lekk léeg ñaara lay dal benn góor a ko waxoon nee na jigéen ñett la ki nga gisal sa bopp ak ki ñu la gisal ki nga gisal sa bopp ak ki la gisal ak ki la gisal boppam ñett yooyu moo am ci sëy mu ne ki nga gisal sa bopp boo doon dee ci biir sax dangay muñ rek di dem parce que yaa tànnal sa bopp mm-hmm. bu la doon rey sax parce que booy dugg nit ñi di wax nga lànk kam lazatan xaatilatan lil mar'i min xaysu lam yadri na summa fit dosami la bu sëyru wax mu ne ki gisal boppam wóorut amaana sa alal la nob nobu la mu ne la gisal boppam wóorut góor googu moo waxoon ni ku dem ba am alal door a wuti ji soxna doo xàmmee ki nopp ak ki nopp sa alal mu ne lu doy waar la mu ne waaye kilo la way jur yi wutal way jur du la dugal ci lu bon mu ne kooku nekk ak moom mooy gën a neex ndax way jur xam na li gën ci yow mooy xadis bi sang bi daan wax ni e, sa way jur bu jigéen nekk ca pikin bu góor gi nekk ca géejawaay muy doxaan bi muy wax diisa diggante bi lu fi xew ñoom xam nañ ko te fekk juddoo goo ku fi baax ñoom xam nañ ko buñ la wutalee teg ci sa loxo rek rëpp a baax góor googu moo ma daan wax ni ñettaa am mu ne ku lay may soxna na doon kilifa mu ne parce que ñettaa am ki na fàng ak ki ñu yilif ak ki yilif ak ki ñu yilif ma ne ko luy ki na fàng mu ne ki na fàng mooy ki toog fii magam nekk bitim réew mu yore dépaasu kër gi lu jóge bitim réew ci loxoom lay jaar moo ne fàng rek waaye joxewul dara mooy kii na fàng lépp ci loxoom lay jaare waaye